honorable député maire de la commune de Kër Massar Moustapha Mbeng maa ngi and tay nak ak Revocap pour ñu xex coronavirus fi ci commune nu Kër Massar. ñëpp dañu wara bolo ñu andando di xex kon tay so len su Revocap ñe fi Kër Massar mu nekk nag commune bo xamne dafa am spécificité wax ngeen ko par sa tay Kër Massar dafa reuy ëpp na sax ay département donc on a une population galopante hein? démographiquement kon lol tamit nit ñi bari nañ fi plus de 600000 habitants ñi ngi fi tay bo xolé aussi ñi ngi ci 140 quartiers mais aussi ñu am ben ki bu ñuy wax rond point Kër Massar ñëpp xam ko nga wax ko sank fofu mu nek ben carrefour bo xamne mbollem ko joge Dakar di ñew nga jëm Malika wala nga jëm yëmbal noor wala nga jëm yëmbal sud wala nga jëm buun wala nga jëm euh, Tivaouane Pël wala nga jëm ñàgg wala ñàkkurab wala lagros Rose wala jaxaay ba Rufisque Ouest foofu ngay jaare donc carrefour boobu ñi fay jaar niñ bëree waxuma la loolu mais mu am marché encore ci wetam tey ambulants yi fay ñëw par ngoon ak par suba yëpp di fa jaay fu nekk la ñuy jóge ci senegal ay gaaru ceer am fa aussi di taxaw di stationné di yeb dem presque mën naa ne ay 100000 personnes danañ fa nekk par jour sensibilisation bi tey lañ gën a soxla ngeen jàppale ñu ci foofu parce que sensibilisation bi bu amee rek mesure d'hygiène yi ñu teg nit ñi respecté ko yaakaar naa ne su boobaa feebar dina wàññeeku ñun jël nañ benn initiative fan yi yëpp ci lañ nekk presque une semaine un massarois un masque foofu te bëgg nañ ko ñu si sensibiliser ci masque bi ci population bi ñu koy takk parce que boo génnee takk masque bi am na solo yow boo yoree feebar bi doo mën wàll boo ko takkee tamit ku yor feebar bi takkul masque di wax ak yow du la mën a wàll donc yow di nga protéger sa bopp di nga protéger nit ñi loolu tamit soxla nañ ko am nañ ay masque moom lañ bëgg distribuer ñu ngi chaque jour dañuy génnee benn nombre bu important distribuer ko keroog moo duggee héritage indi na fi 1000 masques les étudiants la mairie. ak 100 keur Massar mbeuri ño and ñu séddale ko bu mu jeex yaakaar na né yoy ci xex bobu lañu nek yoy suñ ko défé amna naa yaakaar yalla mën nañu jappalé ñi ngi remercier nak euh, professeur Seydi bu baax baax wax dëgg yalla ndax mom liggéey bu rafet bi mi def tay amul ben sénégalais bu ko rafetlu woon sénégalais yépp gis nañ limi liggéey gis nañ taxawayam ba pare te rafetlu nañ ko. li ngeen ñu ñëw di def tamit aussi euh muy participation citoyenne. ba pare jage askan bi daf ci